allo asalaamualeykum guys so guys tey maa ñëw pour génne sama makeup bi ak just won leen euh, suma face product bi su ngeen koy use nu muy def seen kanam bi ngeen rafet fu ne nii maa xam tuuti makeup on ak tuuti euh, euh, makeup bu ma xam fii doo ko gis sax fa nuroog suma yaram bi te tuuti lu xem laa def waaye maa def fii tuuti ay dama ñëw right now pour dindi makeup bi di ko baax gis nga ko kon nekk na ko niroog suma yaram bi ba pare sa der bi bu rafetee boo si defee ma ko fay mel ni defoo dara gis nga ko waaye boo ko dindee sax mooy dàq waaye boo si defee ma ko fay mel ni defoo dara dafay niroog sa yaram bi oo ngi dugg sama but it's baby white bi la ak remover but still you to be careful so léegi damay jël beneen baby white again gën a fomp fa am yéen ñu ne di bind di wax ne ngeen bëgg jabar yi noonu danaa ñu waas si guddi pour def vidéo jëkkët ak jabar yi uh man ko dugg sama bët bi soo génnee sa makeup bi nga oytu bul mel ni man warta dugg sa bët bi waaye daf dee naqari pour nga génne ko te dugg sa bët bi ko sa si ron fii si ron foofu boo ko defee maquillé bi moom oh my god ok léegi damay euh, def little bit of euh, saabu just little bit again jaxase ko ak euh, use baby wipe bi so saabu baa ngi ni tuuti rek fii mhm. lii saabu may jaay sax la sama basa nga fële bot dama bëgg ngeen gis ne bi may jaay la because wan naa leen ko ak sama bos ay yoon waaye askan wi nga dafa bëri fenkat ba def pour nit gëm la problème la so ngeen di foog ne nag sama bos bu may use fa wutee bu may jaay boo dëkkut ak man loolu ngay foog waaye boo laajee Fatou na la ko wax ak nga laaj nit ñi ma xam man dugg na du may fen waaye fen gi gëj naa koo def xanaa taay xale parce que xale moom askan dañ lay dóor te dóor yi ñu lay dóor fay tax ba nga fen yéen ñi pour buñ la dóor su dara xewee wala dara ay fen yu ñàkk fay demee maanaam nga def dara ñu laaj na nga wéy di ko osanti pour buñ la dóor te man sax lu ma daan def bañ li ma dóor bëriwutoon ay mbiri raxas bool ak yooyu lañ ma daan dóore du ma gune yoo xam ne maa dëgëroon bopp dem génn def la ma warta def wala sàcc fenn wala def la ma warta def bañ li ma dóor so taay ma xale néew ma woon di fenn pour buñ ma dóor lu bëri lay dat you know bot saabu bi laa leen bugg a woon rek mu baaxee sa loxo yeeg fu ne nga koy def bu baax lool sa loxo yi yëpp lay maasale mu rafet smooth nooy rafet léegi may jël beneen may def ñaar bi yoon sax pare def si makeup remover pour mu mën a remove lu nekk suma kanam gi propre mhm. gis nga nu ko xubba de fay xubba fay xubba xubba saabu boo ko jëndee lu xem rek boo ko defee fay xubba xubba xubba xubba ku la nes saabu bi la doo ko gëm bi nga nu xubee dinga ko lu ndaw lu rafet xubba bi nga saabu bi góor a jigéen mën na koo sangoo te boo ko sangoo ba pare billaahi yow sangee xam ne saabu baax nga sangoo kii laa bëgg a génne la comme dafa takk na it's not easy pour ma di ko wan nii parce que normally su ma koy def may sangu you know waaye just pour ngeen gis baax na si ngeen gis live so léegi gis ngeen bii xamut makeup bu bëri ëpp bii mooy makeup bi léegi tey mu léegi may use last one bi rek fomp am nañ Mhm. léegi gis naa ne kanam gi set na lu mu defoon si make-up bëriwul anyway tuuti make-up rek laa defoon tuuti um, concealer mm-hmm. fenes pare na soo bëggee nag mu gën laa jox ressource booy sangu lu nooy ngay use surtout jigéen jarul ngay use njàmpe yu xas yooyu noonu Afrique seen xas njàmpe yi ñu use noonu ngay use lu nooy surtout sa kanam gi but even yaram bi fay tax ma nooy gis nga léegi mooy ne set na ba pare already gis nga ko bii set na mhm. soo léegi ngay def euh, rose water su ma defee rose water ba pare form part again and then finish ruus wata bu leen ko di fàtte fa baax trop soo buggee kanam bu nooy te rafet mooy ndoxi ruus fleur fleuri ruus ndoxam bi nga koy jënd si bitigi naar yi jënd ko fu ne supermarket amazon ebay fu ne ñu ngi koy jaay te seerut ruus wata mooy fleur googu ruus ndoxam dañ koy jël nal ko pare jël ndox mi def ko ci pot moo tudd ruus wata mooy ndox mi Mm-hmm. dégg nga dal di koy bàyyi nag mu wow rose water bi wow si su woowee nga diw ko su woowee ngay gis na mu melaxee waaye vidéo baa ngi bugg a jeex nag damaa bëggoon ngeen gis ko so lu may naan fii mooy uh, mbor mbor tinkilibaa sepp uh, xobi siso waaw xobi sisop mu ngi fii ak xobi mentelaato garab googu tudd mentelaato afrique xëy ne xob yi guddi te sew na mu ngi fii sawa sob lii mooy xobi sisop ci hàngal yow yëpp laa boole fii ba pare def si tuuti clove xaw ma sax ndax yéen a ngi seen clove bi noonu si ron bi baxal ko di ko naan mun nga ko naan ñaari fan wala ñett tenkili baaba ak mboom mboom man ma koy jaay tamit ku ko bugg waaye foo ko mënti amee baax na dee leen ko naan defa baax si xam suukar de <clears throat> soo koy baxal ngay def ndox mu xem su demee ba bax lii suma karité bi may jaay la soo buggee sa yaram wi rafet ki ko bi may use moo ne nii ngay jënd karité bi di ko use fukki pound ak juróom rek la saabu bi tam fukki pound ak juróom ak xam naa face oil by the face oil bi mu ngi nii waaye bii mooy suma bos man suma bos fii laa ko def si empty batoli um, jël mën nga ko def face oil mën nga ko def body oil soo si xamee lu bëri soo buggee ma defaral la body oil bi xawul batul waaye su dee bu ndaw bi la oil rek la bi soo xamee oil nga xam ne fa baax ko dafa xam frankincense ak other good oils vitamine E bu bëri te vitamine E bu baax naa dee jënd léegi nag vidéo bi jeex nag yéen a gis ngeen xaaral ma fay ko mu ñëwaat si. vidéo ba jeex nag bon gis nga ko whole set bee nekk nii lip scrub face oil sa